Sénégal ndax ko moom mu am ndey ak ko moom mu amul ndey dafay continuer ba tey di sax li kañ lay jeex di rek ay laaj yoo xamante ni askan wi dañuy woy ba tey di ko laaj rawatina baadoole yi ndax Sénégal dëkk la boo xamante ni ku am kudd doo lakk ku am doole këdd suñu alal tamit dara du la ci fekk loolu nag ba kañ ndax xoolal ma jëf ju bon bii Cheikh Ahmadou Bamba Diaye daal di def ci ay sénégalais yoo xamante ni jël seen alal lu jege ci 800 millions dóor leen ay dóor yu métti ñii seen sëy di ci waaye tas ñii seen yoonu kaso taxaw ñii seeni projet daal di nax saay lépp rek ndaxte moom la nee na ñoo yaay am na benn frère am boo xamante ni autorité bu mag la ci réew mi bo tax mu war a nekk ab laalaake maanaam dóor ñu la neex dara ju ko ci fekk daal ay waayu ndaw samba bàyyi leen xel bu baax près de huit cent millions laa leen wax xoolal ma naataangoom bii mu ànduloon di dóor ñu naan ko Serigne Gueye cinquante et un plainte dong ci monta bu jegee cent trente huit millions loolu rek moo ko du yóbbu kaso maanaam Serigne Gueye moom amul woon kuddu moom mooy it di Matar Ngom borom versus moom it mi ngi ci kaso ba mu mel ni rek benn groupe la ñu créer seen association de malfaiteurs di dóor nit ñi di yàq seeni àdduna léegi nag na ñu yóbbu ñaar ñële kaso daal di bàyyi Bamba ci biti loolu nag muy laaj boo xamante ni ñépp moom la ñuy laaj daanaka ndax sax Bamba mii ma leen di wax plus de cent mi ngi ci noddam waaye yiifa yi di doxi ay soxlaam maanaam bon nag ngella rek yoon bu leen def lu leen askan wi di xeebe jël leen yemale doomu sénégalais yi ndax kat nit ki yaakaar moo ko indi ci yéen gannaaw ba askan wi leen rek la mën muy def devoir am def devoir am nag weesuwul jël ay plainte yóbbu section de recherche yóbbu cybercriminalité yóbbu police centrale daal di yóbbu it devant le procureur di dundee yaakaar ba tey mi ngi noonu ndaxte kat bamba mii lu muy yàq ci vie bari na lool nañu déglu ñi ba situation bu ma Ahmadou Bamba Diagne teg mooy situation bu métti am naqaru xool xaw fa laa koy jooytoo doo sol ba am naa naqaru xool mais samay waajur sama famille am nañu naqaru xool lool parce que man bés bi mois de décembre laa ci dugg décembre ba léegi mois de juillet jotuma ci dërëm un million cinq cent laa ci dugal waaye li ma gën a métti mooy lan mooy convocation yi ñuy jot indi yëpp sama loxo pap lañ ko teg sama loxo pap amoon benn relation de confiance ak sama papa mais gis naa ne relation bi mi ngi dëñ lu ko waral mooy convocation yi ma jot a indil te mosuñu ma indil convocation waaw Bamba moom mettre na ma vraiment dans une situation inconfortable ak sama famille amoon naa relation d'union d'amitié mais relation boobu wàññeeku na lool yëpp Bamba yaa ko waral te amoon naa projet lool lool sama projet bi ma amoon tombé na nii àllo waaw. am naa situation bu ma métti bu ma métti lool lool waaw Ahmadou Bamba Diagne mettre ma dans une situation man euh, Bamba man Bamba daf ma nax ne ñaari yoon parce que déjà waxuma woon ne ma affaire trading la bi ma ko wooyee dana ma entreprise laa yore da investir ma liggéey. 25% am si montant bi investir pendant 10 mois Je suis koy dama prêt man jàngalekat laa dama nekk prêt affaire yi location bi cher parce que ngi jël studio à Jëppal di fay le mois ma xaaral kon ma ma ma les pendant les 10 mois. dinaa si mën a fay sama loyer ma dem def rallonge laa def dama def beneen prêt eh, jox ko xaalis bi malheureusement pour man fayaguma ba benn weer ba affaire bi daf ma topp ay bor ay bor am na sama benn sœur boo xam ne maa ngi ko yoreel quatre cent quatre-vingt-quinze mille laa ko laboon fayagum ko deux cent mille mu des xaalis boobu noonu ba pare mois bii ni ma nekk di yow ak tabaski beeg nii wallaay ba léegi yow yoraguma fayaguma location nii ba léegi nii instant yi j'ai moins de vingt cinq mille ak man laa yoo yore te maa ngi war a fay loyer fayaguma location te li ma yore si xaalis nii nii tey matul vingt cinq mille waaw lool mooy sama jafe-jafe. waaw man lu may investir si Bamba Diagne dañoo waxante lu mel ni nit man man melu ma noonu ci moom confiance vraiment xaas bi jàmbur bi denkoon dénkoon xaas xaalis bi ma yoroon boole yépp. na xaama dugal 2 millions rek su ma dugalee 2 millions su ma fayee 4 mois rek xaalis bi génn ma ma jox borom xaalisam le 10 novembre laa laa investir le 10 décembre ma war maa fay ba léegi fay ma su ma ko woowee du ma wuy su ma ko vocalee du ma tontu naka na moom nekkul nit ku baax yàgg naa def loolu waaw yàgg naa def loolu man na sonn naa jaaxle naa parce que xaalisu jàmbur laa jël xaalis sama xaalis bu ma dencoon investir ko ci deux millions laa ko investir boobu ba léegi fay ma un franc un franc un franc xam nga ne metti na man sonn naa jaaxle naa xawma fu ma jëm li xawma fu ma koy waxee ji waaw man de waaw man de dama xaw a sori sori daal moom lay jooy mais su ma soriwul woon xam naa xeex bi kenn duma si njëkk parce que man avant moom may intégré groupe bi six mois six mois de jour en jour daf may wax waaye kañ ngay dugg xaalis baa ngi dem de par la suite mu dugal mu mu dugal ma xam nga bien reçu yi bien reçu rek mu wax convaincre ma ma dugal deux cent quatre-vingt-dix mille mu fay ma deux mois ma ni xaaral ma dugal cinq cent quatre-vingt-dix mille ma dugalaat cinq cent quatre vingt mille après dugalaat un million cinq cent ma dugalaatee un cinq cent yooyu mois de novembre la mu waroon ma fay le 10 décembre bi le première décembre ma dugalaat un million mu un million yooyu le premier laa ko dugal le 10 mu ni ma euh, ma dégg ñu ni affaire bi yàqu na loolu daal moom ma gën a metti surtout waaw léegi nag ah xam naa ni comme li ñuy wax mbokk euh, magam moo nekk ci gouvernement bi xawma moo tax daal mu jël suñuy xaalis tëdd ci kenn du ko woo ba jot ko kenn du ko message ba mu wuy la vraiment doy na waar daal doy na waar. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Malaysia Armai Kudatio Yusri parmi Victim de Bamba Man eh, de Mafien Onza Mena Frera Prem de Frera Banker Simi 7 millions Onde pose così Bamba Pour un gain de 3% 300% Bon, il est là actuellement, son rêve est brisé, il a des problèmes financiers, mënatul liggéey xamatul ci ñu ko fa yóbboon sa porte nañ plainte affaire bi doy na waar trop trop trop ah doy na waar doy na waar affaire bi daal doy na waar daal ba mënoo koo expliquer daal te xam moom daal ne yóbbu nañ yoon ñun jàmm lañ doon affaire bi sottiwul nag yàlla nañ yàlla jàmm daal. lii nag mooy tung ne du teew ñuy ni taal bari na lool nag ay cas dafa fekk rek lii lañ si mën a jukki ndax kat luy duuf suñu nag bi yépp xajul ci cin li bon nag ñi ngi interpellé yoon ñi daal def seen liggéey gannaaw ba moom dafay taxaw di fëgg dënn ne lu koy dugal kaso juddoogul te kenn mënul ci moom lenn ndeysaan am wéeruwaay a neex lii mooy Sénégal nañu bañ nag ku ñuy wax waxu injustice à deux vitesses ak lu ci mën a am rek waroon ngaa bàyyi xel ni ku wor daa war ren mu jig la dañu ko jiin rek xaayaan ku dégg séeréer